Famara Ibrahima Cissé ñu ngi lay nuyu di la dalal. nga jiite association des clients et sociétaires des institutions financières muy ACSIF tey ñuy wax ci loi bi nga xam ne nee nañu une loi sur la définition et répression de l'usure ñu daal di ko wote bu yàggul ci assemblée nationale tey lan la vote boobu di représenter pour yéen waa ACSIF. waaw vote bi li muy représenter lu rëy la ci ACSIF parce que victoire la daanaka. ci agsi mhm. ndaxte xam nga dañ ko yàgg jooy di ko yàgg kaas yàlla def yomb euh, waa ko mhm. Sénégal en conseil des ministres ñu adopté ko assemblée nationale ñu yóbbu fa ko bi sous forme de projet assemblée en plénière ñu adopté ko mhm. donc loi bi dafay ñëw pour gën a euh, dimbale usagers parce que boo déggee redéfinition mooy lan dañuy tëggaat la ñuy calculer taux d'intérêt bi taux d'intérêt bi ñëpp xam nañ ni dafa jéggi dayoo dafa ëpp ci dëkk bi. Hmm. léegi nag loi bi dafa ne dañ koy tëggaat parce que bu njëkk ba taux nominal rek lañ doon lañ doon lañ doon euh, def ci suñu contrat yi. Hmm. ba pare dañuy dagg yeneen frais yoo xam ne dañ ko bokk ci ko boole ci taux d'intérêt bi léegi nag banque centrale dafa ne frais yu ñuy dagg client bi yëpp. Hmm. ah commission yi ñuy joxe di ko dagg client bi yëpp dañ koy boole ci calcul taux d'intérêt bi te du dépasser quinze pour cent pour banque yi. Mm-hmm. téeméer boo jël fukk ak juróom. yi du dépasser pour cent téeméer boo jël ñaar fukk daanaka léegi banques yi ñoom non seulement taux bi ni ñuy appliquer client yi dana gën wàññeeku. Mm-hmm. mais danañ ko def ba mu leer nañ nañ nañ ci contrat yi nga xam ne client bi da koy jot. bépp ko bu jot contrat danañ ci def taux effectif global mhm. bépp client bu jot tableau d'amortissement ak yeneen client yi di topp ci prêt danañ ko ci def mu leer nañ léegi ndaxambaay day jeex ci mbirum jënd bi ak jaayum xaalis bi nga xam ne banque yee koy def bi la bu boobaa client bi dina xam wala boog bu jéggee Euh, plafond bi nga xam ne dañ ko koo fixé. bu ko mhm. defee mën na koo topp ci yoon. te bu ko toppee ci yoon danañ ko teg ay daan yu métti métti métti donc taux d'intérêt bi dina gën a oyof pour client bi. Mhm. mais tamit dañ ne répression xam nga euh, taux bi ku ko jéggi banque centrale nee dañ la teg ay daan yoo xam ne ah, mën nañ dem sax ba tëj sa banque wala ñu tëj sa mutuelle. Mhm. mais boo jéggee banque yi jéggi mutuelle yi dafa am ñoo xam ne dañuy def ay suul bukki suuli bukki. nekk ci ci ci ci dëkk bi di jaay xaalis di def activité bancaire te amuñu benn agrément. ñooñu hmm. tamit loi bi dafa ñëw pour artu leen képp kuñ ci jàpp euh, caabi dana la féetee gannaaw te danañ la teg ay amande yoo xam ne day métti lay doon donc loi bi dafa ñëw pour setal raxas euh, lépp loo xam ne dafa bokk ci jëflante mbirum xaalis moo tax ñun actif dañ koy rafetlu. parce que liñ daan xaar la ndaxte li ñuy gis mooy. Mhm. bu njëkk ba nit ñi dañ doon nekk victime de surendettement daanaka dañuy leba leba leba leba doon ñu mën di fay parce que taux d'intérêt yi li leen di teg moo tax du ñu ko mën a supporter dañuy dem leb pour mën a fay bor leb boor pour mën a fay bor looloo fi amoon léegi nag ak loi bi je pense que situation yooyu yëpp dana ko corriger et moo tax ñu ñaan président de la république. très rapidement mu promulgué ko euh, génnee décret d'application boo xam ne dana tax euh, usagers yi gën a soulagé te yéen am ngeen yaakaar ne buñ ko promulgué tamit dana tax ñu appliqué ko. waaw jàpp nañ ni danañ euh, danañ am décret d'application te danañ ko appliqué loolu nag association de consommateurs yu mel ni accès ñoo ciy veillé. Hmm. pour application bi soit rigoureuse. Hmm. bu ko defee bu ñu gisee banque boo xam ne jàngati na rek très rapidement ñu fexe. ni ko yóbboo tribunal ñu teg ko ay daan yoo xam ne beneen banque dootu ko ñemee di def. ñu wax ci euh, beneen mbir euh, hmm. benn mbir la sax euh, lañu mën a wax tey jii muy mbiru Bocar Samba Dièye ñu gis leen ci ngeen am benn taxawaay mbir mi fu mu mujj jamono ji Bocar Samba Dièye doomu réew mi la. ñëpp hmm. xam ko ci njaayum ceeb njaayum diwlin. depuis avant Sénégal di am indépendance moo ngi liggéey. Hmm. liggéey la xam jaamu yàlla. mais comme dañoo am ay banque day opérateur économique mënoo liggéey sans banque yi moo taxoon moom wóolu système bi jël alalam dugal ko ci benn banque bu ñuy wax CBAO. Mm-hmm. CBAO nag teg ko ay dëgg sërëx dóor ko jël xaalisam du toll ci presque huit milliards ba pare bëgg ko jaay doole ñu ne nag loolu ñun ak sëf duñ ko nangu doomu réew bu liggéey xaalisam ba yóbbu ko ci banque bi banque bi dóor ko ba pare bëgg ko jaay doole moo tax dossier bi dafa nekk tribunal depuis 2008 xam nga banque boo ko tooñee 12 ans jar ko wala 13 ans pour mu pour mu nangu la yor yóbbu la tribunal toroxal la dossier bi bu defee 13 ans ci tribunal c'est parce que dañ koo tooñ te dernier expert bi wax na ko justice jël na benn expert pour mu leeral ay bëtam expert bi xamal na justice nii Bocar Samba Dièye dañ koo tooñ te dañ koo ameel xaalis te CBAO a ko war a fay xaalisam muy 8 milliards. Mm-hmm. parce que expert bu njëkk a jël tribunal jël ko lu mel noonu la wax CEDEAO ne expert boobu dafa faar ñu jëlaat beneen expert mu waxaat lu mel noonu ñoom it fi mu nekk ni dañoo bëgg dañ ne encore expert bi dafa faar dama ne mille experts ko jëloon tamit yu sérieux yu dëggu yu am diine bu ñu leen jëloon bu ñu liggéey même résultat lañu la ñuy arrivé mhm. CEDEAO ci question Bocar Samba Dièye mënta am dëgg dañ ko tooñ teg ko ay dëgg sërëxal loolu nag dafa war a jeex ci dëkk parce que tey boo ko Samba Dieye la ëllëg peut-être yow la wala dana ëllëg keneen la loolu nag kilo dëkk yu mel nii dañoo war a def protéger client yi parce que ñoom seen dëkk ñuy jógee client bi dañ koo ba nga xam ne ñemuñu ko faa def ñun nag suñu dëkk yi ñun daan ñooy seetaan ñu toroxal suñu opérateur économique ñu toroxal suñu askan bi euh, ci ci ci ci loo xam ne teguñu ko ci yoon jël alalam bu yóbbu ko seen dëkk di ko tabax moo tax ak si taxaw téemb ne question Bocar Samba Dièye ñu ngi xaar justice pour mu prononcer wu mais li mënta am bu nekk bu jaarul ci yoon ñun danañ saisir directement peuple bi danañ saisir directement assemblée nationale à travers répétition mhm. pour que ñoom ñu jël ndogal bi parce que la justice est rendue au nom du peuple loolu nag dañ ko seetaan si nga xeex la te jàpp nañ ni buñ jaarale lépp ci yoon Bokar Samba Dièye dina jotaat alalam. tey bu weesoo euh, taux yi nga fi wax euh, tout à yan jafe-jafe yi la moo gën a fës ci euh, diggante banque yeeg seeni sociétaire waaw xam nga tey banque yi dafa doon kaso pour client bi képp kuy client ngay liggéeykat boo demee ba nga xam ne banque bi mënatoo def ak moom boo bëggee génn ñu ne la doo fi génn. amelu ma la dara damaa bëgg génn ñu ne la doo fi génn da ngay fay mu mel ni prison la boo xam ne kuy génn da ngay fay di presque deux cent mille pour génn sa banque loolu nag dañ ne du dëgg du yoon parce que année quatre dix le banque centrale libéralisé système bancaire bu mu koy libéraliser dafa bëggoon concurrence am seen diggante bu ko defee concurrence bu amee prix yu wàññeeku mais jamono ji wax loolu concurrence amul ci diggante banque yi pour plusieurs raisons bu ci njëkk mooy même actionnaire yi ñoo nekk ci banque bi nekk ci banque ñaareel bi mooy boo bëggee génne concurrence mooy nga génn am possibilité dem bàyyi fi dem jëndi fale te loolu amul parce que boo nekkee ci biir banque bi bëgg génn daañu la découragé daañu la fayloo xaalis bu takku ba nga xam ne yow boo génnee dootoo amati benn njëriñ ñu ne nag loolu du dëgg du yoon il faut que banque centrale il faut que autorité étatique ñoom ñëpp ñu dugal ci seen loxo pour que client bi mu am liberté liberté boo xam ne bu ameelul dara banque bi mën naa dem te du fay dara liberté boo xam ne même bu ameelee banque bi mu mun na dem ci beneen banque mu racheter ko crédit bi que foofu la gën a gis boppam loolu nag xeex la boo xam ne ñu ngi koy xeex pendant des années malheureusement ba léegi état bi ak banque centrale artuwuñu ci ñu ne nag vraiment ñun xeex boobu duñ ko bàyyi parce que il faut que ñu libérer clients yi. Mhm. beneen bi mooy carte gab yi ngeen di gis gis ngeen ni yéen dañu di fay carte yi lu cher yii soixante mille yii quarante mille yii vingt trois mille te carte bi boo demee gab ba ñu ne la dafa paan amul réseau. Euh, hors service ak lu kenn xamul mu nekk préjudice boo xam ne dafa bu mag la boo xam ne dañ koy teg client yi alors que client bi yow tegee préjudice bu ndaw banque bi mu teg la ay daan ñu ne nag loolu du dëgg du yoon. moo tax ñu ne il faudrait que ñu am ay gap de qualité yoo xam ne. Mhm. dana tax euh, client bi def opération facilement te du am ay yenn jafe-jafe yi. dana tax client bi bañ a ñàkk xaalis bu demee di retirer euh, xaalisam ci gab bi. parce que mhm. dafa bëri ay débit clients yi di yàq seen xaalis wala pour ñu jot ci ah, da danañ sonn lool beneen bi mooy client bi dafa nekkul en sécurité buy dem gàpp parce que dafa am ay gàpp à ciel ouvert ay gàpp yoo xam ne amul benn sécurité ñu ne loolu yëpp rek du dëgg du yoon te ñun wax nañ leen nañ def ay caméra de surveillance ci gàpp yi pour plus de transparence mais na investir ci gàpp parce que ay gapu seconde main la ñu am ay gàppu traditionnel amuñu gàppu dernière génération yi nga xam ne ah, day tax sax yow boo bëggee denc xaalis sax mën nga ñëw ba ci ngab bi jarul ngay dem ci gise bi nga dem ci ngab bi dugal fa xaalis mu jox la reçu nga téye mhm. il faut que yooyu ñu innover il faut que ñu il faut que banques yi investir ci qualité de service bi malheureusement ñun dañoo am problème ak ñoom parce que qualité de service bi ñu bi war dëgg dëgg dëgg ñoom nekkuñu di ko si def li ñu xalaat li xam rek mooy am bénéfice yóbbu dem tabaxi seen dëkk loolu nag du dëgg du yoon. au-delà de problème cap mhm. yi yeneen problème bëri trop parce que chaque jour ñun dañuy def ay réclamations ay plaintes yoo xam ne. Mhm. day jóge ci clients yi. ah ñu traité tous les jours mais problème yi ak jafe-jafe yi bëri lool lool lool ba tax ni autorités yi war nañ cee taxaw war nañ cee taxaw pour jàppale client bi parce que client bi dara lu liggéeykat boo xam ne euh, système bee ko imposé na ko sa salaire bu tollee ci cent mille francs dañ koy yóbbu ba gàpp comme di ci coobareem pour loolu am na dañ leen war a defar ay loi yoo xam ne da leen di bu ko defee banque bi bañ leen a parce que diggante bi loo te wax tolloo ju doole banque dafa am doole am na possibilité jël avocat. Mhm. te client possibilité yooyu yëpp. moo tax nag état bi war a jël loxoom dugal ko ci. bi saa ñu amee jafe-jafe banque bi mu mën koo taxaw. est-ce que jàppoo ne clients yi dañuy subir loi bi ndaxte nationaux yi investir ñu ci banques yi. dëgg la parce que xam nga banque yi ci am toll na si ñaar fukk ak juróom mu am ñeent yoo xam ne ay euh, établissement financier la leen wax à caractère bancaire mm-hmm. ci mutuelle yi boo xoolee dem nañ lim dem na si euh, ñetti téeméer ak ñett mm-hmm. donc bëri nañ lool mais li ñu gis mooy banques yi ay banques étrangères lañ daanaka sénégalais yi moomu ñu leen Sénégal moomu ko Sénégal benn euh, am na fi ay action rek ci quelques banques te action yi bëriwul mooy moo ne nii banques yi banque étrangère la waa bitim réew ko moom dañuy ñëw fii di liggéey tibb xaalis bi dem tabaxi seen dëkk sénégalais yi nag moo tax ñu leen di yaax ba léegi ak si fa koy wax nañ investir ci secteur bi pour que dividende yi ak bénéfice yi mën a des ci réew mi pour que ñu mën a tabax réew mi hmm. état bi sax dégg naa leen ñuy wax ni ñoom dañoo bëgg seen banque loolu lu rafet la nañ wut banque parce que banque moo yor économie dëkk banque moom mooy financer entreprise banque moom mooy financer petite et moyenne entreprise yi jeunes yi nga xam ne amuñu liggéey femmes liggéey te am compétence banque moom moo leen di financer banque moom mooy financer projet état donc dëkk bo amul banque teg ci woon dara parce que te alal bi boo ko liggéeyee tamit ñeneen a koy jël yóbbu ko dem tabaxee ko seen dëkk moo tax nag banque dafa baax ci réew te état dafa war a am boo xam ne moo ko moomal boppam ay fonctionnaire am ay travailleur am ak liggéeykatam yéen yëpp dem ci banque boobu dooleel ko bu ko defee banque ba nekk une banque sax internationale dem ci yeneen dëkk yi di fa tibb xaalis di ñëw di tabax suñu. Famara Ibrahima Cissé ñu ngi lay jaajëfal bu baax a baax. maa ngi leen di gërëm di leen sol